jëmale njàngum arab kanam moo leen tax a jóg loolu ñun ñëpp ci lañ bokk parce que ñun ay ay euh, arabisan lañ comme ñoom nee nañ ñoom bi bi euh, xibaar bi génnee rek xale yi banque seen loxo génn kayit woowu bu circulé dañoo gis ñoom tam lettre bi ñu bind ak seen en wax ni ñoom ñi ngi ci wetu étudiants yooyu di leen appuyer di leen dooleel ca loolu sans pour autant ñu ñëw ci ñun pour laaj ñu wala sax ñu ñëw def ay investigation ba xam mbir mi nu mu demee loolu nag boo amee kon xam nañ ni ñii nëbbutuwuñ waaw euh, fédération communiqué baa ngi nii bëgguma leen tudd vraiment pour defal leen publicité voilà c'est bon. te sax te sax li ci li koy firnde am na ñoo xam ne isib lañ jëlee kii voilà la envoyé. waaw tout à fait xam nga ñun suñ université dafa apolitique ñun dofi doxuñu lu jëm ci wàllu politique sëriñ Maam Mor ku ko xam xam ni mosoo koo dégg mu def benn déclaration lu jëm ci wàllu politique te pourtant toujours muy collaborer ak état bi waaye mosoo dégg mu def benn déclaration politique loolu nag mooy suñ ligne. de conduite bi ñuy jaar bi université bi di jaar bu ñu gisee kon ay mouvement d'obédience politique yu dugg ci biir étudiants yi di def ay déclaration kon dañ danañ ni ah attention am na lu ci dugg loo xam ni ingérence la am na lu ci dugg lu bokkut ak suñu suñu gis-gis ñun loolu xam nañ bu baax infiltration bi parce que dañoo toog di ko wax ñuy dégg bokkuñu ñoom ay objectif léegi nag dañoo bëgg utiliser sunu produit suñuy étudiants suñuy cadre pour faire passer leur mission am nañ responsabilité ci bourse parce que ñun ñooy traité liste yi jox ko direction des bourses euh, avant-hier directeur des bourses dafa mardi daf ñu woo réunion ak délégué wu amicalu étudiants yi ak moom presque mën naa ni personnel wu direction des bourses bépp ñu def ak jataayu lëlu ñu def benn réunion boo xam ne leeral nañ fa étudiants yi lañ njëkk jox kàddu ñu leeral fa lépp lu aju ci seeni naqar ci aju ci wàllu bourse bi ñu paree question yi nga xam ne ñoom posé nañ ko da ci am yoo xam ne ñun ñoo ko war a tontu parce que ñun la concerné directement yooyu question c'est des question c'est des détails en fait technique classe sàngam ña fa nekk dañoo amoon retard wax nañu liste yi day dem ak yu mel noonu ñun on a répondu à ces questions question yi ñu posé woon ci wàll woowu yëpp tontu nañ ci directeur des bourses rappelé na étudiants yi que ni booy def grève ci affaire bourse da nga war a xam d'abord li nga war a jëkk a xam mooy ni am na benn texte boo xam ne mooy régir affaire bourse da ko war a lire ba mu jeex pour nga xam lan mooy sa àq ak lan mooy sa yelleef yéen lii ngeen di revendiquer ak lii ngeen di laaj lépp texte boobu wax na ko bokkoon na ci li gën a naqari étudiants yi dañu jàpp ñooy dagg ñenn ñi di leen génn ci liste yi bu ñu inscrire ba pare ñun ñoo leen ciy génne directeur wax leen ni ñoom ñoo demande ci université bi ñu di ko jox ay liste yu propre yoo xamante ni ñi teew di jàng kes ñoo ci nekk ku inscrire wul bokkoo ci ku ñëw inscrire ba pare di absenté bokkoo ci loolu dafa am solo ñu bàyyi ko xel euh, loolu moo ci ëppoon responsabilité mooy affaire liste yi ak traitement traitement liste yi léegi nag. léegi nag euh, euh, am na lu ajuwaat ci wàllu bourse yi étudiants yi di ko wax toujours mooy pour ñoom dañoo gis ni dañ leen a war a fay ni ñuy fayee seen morom yi ci des ca ba pare dañ leen di war a fay en même temps maanaam bu fekkee ñaar ñu bokk ndey baay dañoo bokk génn kër kii ñu orienté ko jàng tubaab ñu orienté ko UCAD UCAB UCAD 2 UCAD 2 Université Cheikh Anta Diop ki ci des ñu orienté ko UCAB Université Cheikh Amadou Bamba ki ñu orienté UCAD mooy njëkk a dem jàngi moom mooy njëkk a jot orientation moom la ñuy njëkk a fay te bu ñu koy fay mën naa fayee ko banque mais ki nga xam ni daf ko dañ ko orienté UCAB moom day fay yéex a jot orientation day yéex a fayee ko yéex a fayee ko googu nag moo aju ci bourse yi ñoom loolu la ñuy revendiquer loolu liñ ci leeral ñun mënuñ ci retard boobu dara lu ko waral. parce que dañuy recevoir étudiant wu UCAB dañuy recevoir étudiant wu UCAB tardivement fi mu nekk nii campusine bi ubbeeku ubbeeku na plateforme bi étudiants yi am bac ñëpp ay dugg ci biir demander orientation suñu paree dañuy jël ñoom li département arabe mën a jël pour les arabophones les bacheliers en arabe la ca des nag danañ toog ba mois de février wala mars d'habitude ñu doo koo jot bu ñu jotee ay liste d'orientation au mois de mars te ñoom ak ñi ñu orienté ndoo au mois d'octobre wala novembre ñoo war a bokk même année académique xam ngeen ni retard mënut a bañ a am parce que après bu ñu la réception de listes d'orientation il faut ñu ñu def li war a def yaa a des procédures inscription bi dañ koy ubbil durée dañ naan une durée de deux mois parce que étudiants yi plus de 2000 boo leen bëggee inscrire ñoom ñëpp ci un mois boo muy dana am ñu ñëwut créewaat yeneen problème bu ñu ci tegaatee deux mois pour les inscriptions ci mënuñoo envoyé benn liste ci deux mois jeexee ñu door nag defar liste bi envoyé ko division de l' enseignement privé l'enseignement supérieur direction de l' enseignement supérieur ñoo ñu traité envoyé direction des bourses ñu traité s'il y a des erreurs à rectifier ou à corriger ou ñu defaraat envoyé waat ko direction de l' enseignement supérieur mu indiwaat ko ci ñun bu ñëwee ñun ñu jotaat ko defaraat ko doon ko envoyé donc toutes ces procédures la comment ñun nan lañ mën a def pour éviter que retard am c'est pas possible parce que ça ne dépend pas de nous. plainte sauf que ci niveau bi ñu toll nii jaragut lu mel noonu parce que ñun université la boo xam ne c'est une université à vocation religieuse c'est-à-dire que lu ñu def lépp ci wàllu dafa am dañoo am ñun euh, ay valeurs yu ñuy doxee bokk na ci pardon bokk na ci ouverture bokk na ci aussi bokkoo ak ñëpp looloo tax euh, ubbiwuñ front de bataille contre quiconque ñun loolu du suñu objectif taxu ñoo jóg mais lii dañ koy wax pour nga xam ne xam nañ ko léegi nag am nañ suñu stratégie interne yu ñuy def ci wàllu jëflante bi ak wàllu doxaleen bi ba loolu du mën a gàllankoor doxalin bi. Ah, waaw étudiant grévistes yi xam nga étudiant moom toujours da ngay comprendre situation sinon kon da nga naan à partir de jour tel commencé waat ay cours képp ku ñëwul dàq nañ parce que loolu moo nekk ci certificat d'engagement yi waaye nag sëñ moom ku dee xam na yërmandeem moo tax am na ci déclaration am mënu ma koo def fi ñu nii wante wante. mënul nekk nga nekk ci université ba pare di saboter doxalin bi ba pare ñu continuer bàyyi la ngay saboter doxalin bi parce que da ngay yàq lu ñëpp bokk loolu moo tax ñi nga xam ni nag dañoo continuer ñoom euh, maanaam xaw a fetteerlu ci li ñuy def ñooñu jëf leen ak ñoom partout tous les moyens nag pédagogique ak yeneen ak yeneen.